mbokk yaa xarit yi dañuy ñëw ci ki nga xam ni moom lañuy ñuy wax Alioune Ndoye Alioune Ndoye euh, dama ne woon sax parce que Alioune Ndoye euh, ay mbiram euh, teg ko ci penc mi sax de daanaka doonu ko woon jar waaye bu fekkante bi dañuy wane Alioune Ndoye di wax ci ay mbiram lii mu def nii. maanaam dafay mel ni rek nit koo xamante ni parce que man jàpp naa ni président Macky Sall liñ ko tuddee nekkul ni dama wax ni euh, mérité wu ko déedéet mérité na tuddee ko lu ëpp sax lii Alioune Ndoye di ko tuddee mérité na ko na ñu tuddee ko lu ëpp lii Alioune tuddee ko waaye dafa am loo xam ni daf fi am barki Dembo Ndiaye ñu gis Ousmane Sonko daa dee falu. daal di taxaw ne Ziguinchor changé yi nga xamante ni bi tey ña ko fa defoon mooy ñi nga xam ni ñooñu doon noot mu jël yenn rue yi tuddee ko ay tirailleurs rek yenn ñi nga xamante ni bi macha allah ay nit lañ yoo xamante ni bi xeex nañ pour seen patrie ñu lankal ko ko bañal ko ko ginnaaw ba mu ko defee ba pare ñu ñëw dindi ko léegi bu fekkante ni bi nànkal nañ ko loolu ñu gis tamit ñeneen di ñëw di tuddee ñu di leen ko nangul loolu day delluwaat ci li nga xamante ni bi mooy tache noire yi nga xam ni tey mu ngi nekk ci nguuru président de la république kon pareen am na loo xam ni bu ko nit ñi di gis sénégalais yi di gis dafa am loo xamante ni bii moom lay wane te loolu day mel ni dafa am sénégalais boo xamante ni bii moom lépp lu mu def ñu football ko waaye lépp loo xamante ni bii keneen def na ko mu daadee dagan tey jii da gis koo xamante ni kii tey ànd naak Ousmane Sonko ku ci mel ni nit dof wax na yëkkati ay kàddu ñu ne saaga na mais kan la saaga saaga wut kenn bi muy saaga sax dafa mel ni dafa jël saaga bi jëmale ko ci boppam et pourtant tey ana nit dof ña ngi ko denc ci kaso bi ñaata nit ñooy taxaw di saaga Ousmane Sonko ci réew mi ana nit ñooñu fan la ñu ne. et pourtant kenn tegul leen benn jafeñ-jafeñ mu mel ni lépp loo xamante ni bi moom lu bon la lu ñaaw dagat na ngir nga jëmale ko ci jëmm ji nga xam ne mooy Ousmane ko waaye lépp loo xamante ni bii nag ay ñoñam ñi nga xam ne bëgg nañ ko wax nañ ko bu ñu juumee ba wax lu doy ni tarafatal ay ni ci lu ñaaw ñoom ñoom nañu leen sànk loolu sénégalais bi nga xamante ni bii tey am na koo xam ni injustice bi ñu tegoon président Macky Sall moo tax mu voteel ko 2012 gis ni nit la koo xamante ni kii tey dafa am lu mu laal ñu daal di ko koy bëgg a xañ daal di wax ne Karim wàdd nañ ñëw càmbar ko ba tax ñu génne ko fa mu nekkoon teg ko lu ne sénégalais yooyu mobilisé wu ànd xeex ak président de la république ba tey li nga xamante ni bi tey fa lañ ko teg ñu teg ko fa les mêmes sénégalais yooyu ñoom ñoo fi nekkaat ba tey lañ doon bañ démb 2012 tey lañ ko gën a bañ ndaxte ñooñu soppeekuwuñ ñi soppeeku mooy ñi nga xamante ni bi tey fal nañ leen ñu daal dee am neneen noo xam ne gisee nañ ko mais les mêmes sénégalais ñoo fi nekk même injustice képp ku ñu gis ni teg nañ la loo xamante ni bi jaaduwul aussi tamit loolu day daal dee si